yëpp la ñu ko waroon a amal waaye nag loolee dañu saa mujjee génn ndax ñoom nee nañu mujjantal gi dañoo waxtaan ak ñi nga xam ne ay kilifa lañu nekk ci armée bi journal bi di Direct News nee na en tout cas li ambade sàll ci mbedd mi xeex moo ko dem ca tribunal ba ndax saa suñu ko woowee Ousmane Sonko woo ndaw ñi ngir ñu wàcc si mbedd mi maanaam rapport de force boo xam ne Ousmane Sonko dina ko tegal gars yi ndax nag manifestation yooyu nga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 ca kasu ba journal bi nee na doyen des juges ubbi si information judiciaire yéen kaay gi de la sa nee ñi nga xam ne ñoo doon manifester sa diwaanu Saint-Louis te ñu teg leen loxo ñoom ñëpp libéré nañu leen yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy diñu xibaar naan ñu ci weeru avril wi njiitu réew di président Macky Sall dina may audience secteur privé bu Sénégal ngir ay concertation waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu réew mi yéen kaay gi di sunu làmbu xëy diñu xibaar naan ñu combat Sa Thiès taxaw na Ama Baldé médecin yi nga xam ne ñoo nekk CNG xool nañu ko waaye ba léegi Ama Baldé wéragul